Assalamualaikum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen euh, kon niñ koy faral di defee màggal gu jot euh, Prestige TV fas yéene si ànd ak yéen euh, ci wàccaayu màggal gi ba bésub màggal gi tey nag dañoo ñëwoon fii di jannatu ngir waxtaan ak population bi li ñu xam ci wàccaayu màggal gi ak nan naka la ñuy accueillir yi nga xamante ni ñooy gani ñu ñëwoon nag fekkoon fi suñu papa yi toog ñu fas yéene waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ni mooy wàccaayu gi ak jaar-jaaru sëñ bi Mortal su seen lañ may wax waaw màggal gi de moom lépp xewal te xewal gi Serigne Touba moo nu ko defal lépp lu waay di yëngu rek da nga ci gis sa bopp yàlla nay doon rek lu baax waaye lu ci waay def rek yàlla moo lay fay ndax Serigne Touba moo ne kaay leen sant le ma yàlla waxut kaay leen sant ba dana kaay leen sant le ma yàlla kon lu ci waay def rek daa mel ne yàlla sunu borom nga ko defal moo tax lu nu man ñun ak lu nu mënul danu ko def ngir kàddu Serigne Touba bi ndax mooy sunu wasala te moom lañu topp te moom lañu yaakaar adduna ak àllaaxira parce que yi may jaay nag sosena laa ne liggéey naa ba retraité ñu téye ma falaa bu màggal excès ñoo may jox parce que yi ma di ko jaay pour lu ma ci foraatu def ko ci saa kon maa ngi sant ñëpp ñoom may liggéey ak ñoom di leen sant ndax jox nañ ma cër te it ñu ngi may dimbale te yàlla tax mooy famille Sala yooyu kii nag day sama xarit ñu ko wax Abdou Khadir Samb moom ci xasaay yi lay yëngu daf maa woo téléphone ma ne ko egsil ba ci place bi moo tax tey mu dox ñëw fekk mu fii ci place yàlla dogal ngéen waaxu ba egsi fi te moom it day day waxtaan Serigne Touba kon loolu lépp ay ngëneel la ak xéwal léegi naa ko jox kàddu mu mën a waxtaan ak yéen. Abdou Khadir Samb laa tudd El Hadj Abdou Khadir Samb dëkk fii gi mboolem li jant bi fenk di ko tiim fépp fu fi doomu aadama nekk. yaa wajal waajal màggal gi ndax lii sëriñ Mortal wax léegi ñu gën ko xam ci sëriñ Mortal Sosanab Cheikhul Khadim mi xamante ne nii ba muy génn fii bàyyi fi njabootam bàyyi fi bokkam bàyyi fi askanam ànd ak ki noonam sol benn bubu bu am yére xaru sax yàlla reyu ko dëkk bi rek a ak murid ci boppam yi ak yoon yi ne dal nak sina mohammed sina mohammed ne na sunu borom subhanahu wa taala yonent bi am lim beggon ci yalla ixraaj wal bi mu ñewé lim bëgg rek ko am way ci yonent bi rek la mëna jaar ba am ko mu ne dana yonent bi ba yonent bi jox ko limu amone ba yobbu ko ci ko joxone mu jox ko ba tax ñu seen tur yi faaw nga tégalé ko bis bi nag mu ne kaay leen santale ma ci yàlla ndax ci la amoon li bëgg kere bis bi nga xamante ne nii ci la jóge Mbàkke Baari jëm Louga dëgmal kokki diggante kokki ak Louga àll booba ñuy wax jeewal dajeeg gendarmerie espace yi mu wàcc foofa fas yi ñu war ñoom gendarme yi ñi ngi xiif mar sonn seen ruu yi di wax ak sëriñ bi sering bi ne len il faut mu fanan ñu ne do meuna fanan mo ne dina fanan tay bobu booba soxla wutoon ci fanan gi dara waye bay jul fas yi espace yi war seen ruy ñoo wax ak bi mar wi ñu mar ak ciona biñ son ak ndar fa mu ne ñu fanan ba ci suba ñu xëy ñëw Louga sëriñ bi mu taxawon te jéewal fa la ko yalla xamalé am dekk bi amna mourid yi amna jumaam ju tedd ji cant googee nag mu dem tukki ba ñëw sant yàlla sëriñ Touba de mënee su koo jiiñ lu dul nit waaye nag deful jenn jëfi nit ndax lépp lu def turu dëkkam ak turu téeréem ak tur turu nitam soo ko ci yeetee xam ne bokkalewu ko kenn te fi la fekkoon lépp sëriñ Touba képp koo fi xam mu baax ba sol yére ba amul poos xamoo ko fi ndax mënoo xam ku gën a baax sëriñ Saliou de tey nit ñi dañ daan rang di ko nuyu diko jox xaalis bu xolé def ci posam ñu jox ko xaalis mu nangu jox kim dendal ñu jox ko xaalis mu wacc mu rot fi suuf ñu jé jéeyi xaalis jox ko mu dawalé loxom serigne touba nak da koo mës laal neexul deret nak ndax ku naqaree la waxtane la cheikhul khadim ndax daa deful dara lu yenu mana te lepp lim def di deug ndax kaw suusi di ku fi trans tek sa tank asaman tim la nga dund fi doon lim dund te mosoo taala sa loxo ñu tek ci koppar koko wax mu weddi ak ni koppar doone liggéeyub aduna bépp waye loxom daawu ko laal sa yu ma saa dajaloo ba yegg ba bari fi kanamam muy jog di dem day jël bant rëdd ko def koy sam rakam ñu wax ibrahim muy mam Ceerno ibrahim bu ñewé xol sam yi day xol bi ne bi day bi da bëgg mu dem ci njaboot ga kër gi bi da bëgg mu dem ci ñi fi dik bi nak señ bi da bëgg ñu suul ko mbaa ñu gas ko suul mbaa ñu lakk ko maam loolu doon def kenn du mom Ceerno Ibra Faati kenn ta waxtane serigne touba yi te bolé wo ci maam Ceerno waye do daaneel mukit, te du Cheikh Ibra mi nga xamante bab baabu muridiin te moy buntu bi Cheikhul Khadim nak dekk bi tay ngeen yendu bis bu mag bi li jant bi fenk diko tim dama ne ko fi seen dëkk moom lay waajal daa rawati nak murit yi ndax murit mom dañu bok ci alal ji ndax serigne bi dane sama yett bu dajé moy doon sama bak, ku fa ñew xamne ma naw bak kam doon waxal ne ko mbàkke yett yoy yu mu doon mu ne ko Touba sama dekk ba ak sama mur ci ya ak sama jumaa ji ca ma yeen ñi joge ties ba ñew ma ngi leen di ñaan altiné ci suba 11h moy quart midi moy quart fu ngeen mëna ne xol leen jumaa ji gis naa ci Seexul khadim jumaa ji bopp day tiitru ba nit ba nga xamne day tiitru xamna ne yéen xamu de ku sañsee koy doxe te ku sañsee koy def waaye boo xoolee jumaa ji tey faar naa de te jot gi ko sëriñ bi jot ak moom gi ko sëriñ bi moom rek moo tax murid di boppam yii nag toog ah sangu bindeef yaa ngi koy kookoy Mohamed nag Mohamed Tall waaw te moo jaraloon sëriñ bi lu ne li mu doon nag mooy dëkk bii ngeen ñëw lu waay bëgg a ngi fi lu ba ñew fi waye na gor lu ba am li li lay yëkëti moko gëna bax ndax def lu bax limuy bax bax am na lu ko gëna bax baax baxé ni mom ki ngay defal lu bax na ko xam man nak yeen kess ngeen joggé ba ñew li reggé ci télé bu mag bi nga xamanteni ni yeen ngi dox di jël ci talibé yi ak julliti di wone ci réew mi waaye tubaarkàlla euh, ngeen xanaa da ngeen ñu nuyul waa kees ñëpp ñun nag Serigne Touba rek la ñu am. waaw ñu bëggoon xam ana naka ngay waajalee li nga xamante ni mooy màggal bi waaw. waajal naa ko ci sama xol waajal ko ci sama jëm waacaa wi it moo ma yëkkati ci sama wóolare wii te Serigne Touba rek tax sama digganteeg moom ak Sidna Mohamed mi mu tuddee doomam ji muy alaaji Mortal mi sose nap. damaa tëdd Dakar guddi waaw. ki nga xam ne moo doon liggéey ci usine sosanab di sama xarit retraité mhm. chaque màggal sama kër lay dal mhm. te ay rakkam a nga fi sama kër lay dal damaa gént Seydina Mohamed jiitu ma julli maag moom ak yeneen pa ma ne bëri di guddi xoo gis xooluma gisuma dara ma ne bala maa faatu yàlla naa am doom ju góor ma tudde ko Seydina Mohamed sama ñetteel bi ëmb muy góor ma ko xale bi mooy xale bi ma ko Seydina Mohamed moo tax man damaa bëgg Seydina Mohamed ba ñaari boo ko waxee sax ma jooy waaw bëgg Serigne Touba ndax li mu bëgg Seydina Mohamed waaw rek sama baay bi ma yóbbu ci daara yi jaar Mbàkke jaar Mbàkke xaritam bi ne ko lu xale bu tudd noo ko yóbboo daara mhm. mu ne ko bu dee dee fa lay dee bi mu ñëwee jub sëñ bi falo dana ko dana ko subhanallah dana ko subhanallah subhanallah fi nga jaar nee na xale bi noo ko yóbboo daara waaye boo jàppee ci loxo bañu ku li mu fi am na ko ba pare am na ko ba waaw sëñ bi falo jaay ma ko wax sama baay may door a ferum sow sama baay moo toog sama kër sama ñetti soxna wër ko ak samay doom muy ñetti loolu murit naa ba wàcc sama baay gërëm ma sama ndey gërëm ma liggéey sosé na ba retraite ñu ne ma doo fi jóge nga ma jox parce que yi may jaay muy fami Salé Ahmed Salé Ali Salé Chadri Chadri ñoom ñëpp ñoo moom isin do ay talibé lañu sant naa leen gërëm naa ndax lu ma mas a soxla ci isin bi duñ na ma déet Ahmed borom isin lu ma ne mas a koo bëgg lii lay def rek du ma delloo loxo mës sa am màggal gaa njëkk a màggali ne ko damay màggali mu ne ma kenn du fi màggali kenn du fi ma ne ko lebal ma carte mu ne ma déedéet ma ne ko ay eh, basang mu ne ma déedéet ma wan ko ginnaaw ba may tollu forus ba la ma dab lu garni ma ñëw mu ne ma dama lay tooñ demal jëli basang fabal jël 40 000 jox ma ne ma man taalibe laa sëriñ fay sam kon maa ngi koy ñaanal yàlla na yàlla aw fanam ndax jox te bëgg na nun ngi koy ñaanal aw fanam yàlla na ko suma borom yokk ndax man ku ma yëg ma yëg na waxuma ko yëkkati xaaj di ma jox yëgeel gi rek laa xam te dafa maa yëg daf ma yëg jàpp kon sant naa ko sant ñëpp gërëm ñëpp sëñ bi nag am na lépp fii lu fi waay di wut lu fi waay di wut rek mi ngi lu fi rek loo jot rek ci yow la sag dogu moo des waaye boo dogoo rek am lépp kon sant naa baax sant naa leen gërëm naa leen man damaa mën a wut ay wax moo tax. non tuddee ah, Ibrahima Sarr da ngeen ma jéggal. <laughs> Ibrahima Sarr jaajëfal bis bii ñuy màggal. Cheikhul Khadim nee na bu ñu demee ba yow mal xiyaam ba jant fenkatul biddiw fekkatul lay xamal ñenn ne ne sama bis bi moo ñëwati dañuy natt àjjana ak yaatuwaay ba dooli ca la na toll yaaram natt àjjana ak leeraay ba dooli ca yaaram natt àjjana ak xéwal ya ca ne dooli ca yaaram waa àjjana xam ne bisam bi moo ñëwati sëñ Tuubaa nee na ñu xam ne sama bis bi moo ñëwati ñu bàyyi ko ca ba déwén kon bis bii bato boo xam ne teeral ko rek moo jafe waaye boo ko teeralee loo bëgg dugal ko ci biir bu jógee foo bëgg mu dem dina la ko fa yóbbul kon ak taalu bi rek waajtaay bi nag da ngay waaj ci sa xol yaatal sa xol woyofal ko di seenu gan ñi dalal leen xewal xeewal leen bànneexal leen te bernde yi tubaarkàlla ni ko sëriñ tubaa waxe li tax ma ne la sëriñ tubaa deful jëfi nit bernde yi sax soo ko seetee weer wi ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci lañuy màggal muy 18 safar léegi boo seetee ni mu ni waxee ne ni la ñuy berndeele tàmbalee ci nag jaar ci gëléem ci gëléem la wax ba ci ci ci ginaar boo boolee gëléem ak ginaar ak xar ak yooyu mu wax boo leen waññee dajale leen fee wañ boo waññee seen tànk yi fukk ak juróom-ñett rek lay doon nga xam ne sëriñ bi moom lépp lu mës a taalal rek yàllaa ko ca fekk defal ko la mu bëggoon dëkk bi nag dëkk la boo xamante ne ni lu waay du wut jiitu na la fi góorgóorlu ba am ko mooy li ndam li rek yalla yalla yàlla ci sutura si ak xewal yi seigne Mor sar mi nak mënu ko fay sama wóllëre ngir sidna mohammed sallallahu alayhi wasallam ci armi mo ma jógee ci la dajee ak mom mu da fee xër ci loolu sumay dem Poroxaan yobub yobantem sumay dem Xelkom yobub yobantem sumay dem Madina salam. toli serigne Abdou Hakim yobub yobantem bu makal gi ñëwee mu ganale gan ñi ci kërëm ganale gan ñi ci sama kër motax tay ji mu ne woon demb na fi ci si ma ñëw fi dajé fee ji yeen xéewal gi ak jamm ji ak tiyaba ji yalla ñu ko yalla boole dajaleel ñun ñëpp te mosoon ci ay wi taxawalu ci réew ci dara yonent bi barke khadim rasool lan ngay tagoto ana lan ngay tagoto ah limay tagoto ak bokk yi de moy nak di ñaan nak cheikh muntaha mu yagg ndax joo jëmm Cheikh Mountakha jëmm la joo xam ne xaw ma lu mu yëgut mbaa lum mu fekkewut waaye lu mu fekkee faj ko lu mu yëg def ca la mu am wax ca la mu am te fu mu doog fa la ko sëriñ Tuubaa fekk dafa sëriñ Tuubaa fekk doogu fa la ko yonent bi fekk yonent bi fu mu tàllal loxoom fa la ko ci yàlla yi fekk aajo yi faju Cheikh Mountakha Cheikh Mamadou Bassirou yàlla na ko fi yàlla yàggal ak njabootu Cheikhu Khadim yëpp ak taalibe yi taalibe yi ni ngay alali borom Touba tey ñoo fi bàyyi Cheikh Mountakha taalibe yi rek ko gëral lu ne jëf waaw mbokk yi kon niñ leen ko doon waxee tey ñu ñëwoon euh, fii si jannatu euh, doon waxtaan ak euh, lii di waa population bi pour ñu wax ñu li jëm ci wàccaay màggal bi ak ki nga xamante ni moo waral bés bi di Serigne Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadim la xanaa nag di leen jox dig daje rek ba ëllëg incha allah. Baba